ñu ngi la gannaaw bi nga xam ne ñi nga doon jëmbat garab te mu méngoog ndigal gi nga joxewoon woon ci taalibe bi bu baax a baax pour ñu am ci taxawaay gu mat sëkk ñu woon sénégalais nag ay fan a ngi nii ci samedi gu njëkk ci weer wu ne ñu génn bokk seetal sunu réew ministre yi di ci génn directeur généraux yi di ci génn premier ministre ci génn man mi président de la république ma ciy génn di bokk liggéey gi ak sénégalais yëpp. waaye bii yoon nga xamante ne nawet ñëw na dañu ko jagleel gannaaw gu ñu seetalee démb ñu teg ci bés bi tey di bésub juróom di ñeenti wet ci ñeenti at ñeenti fan ci weeru ut muy bés boo xamante ne ko jëmmaloo di ci saxal garab at gu ne ñëwoon nag sénégalais yi ci fan yi di setal ñu boole ci tamit taxawaay googu ci euh, donte at gu nekk dafa am ci dëkk guñ koy defee ren gi ministère de l'environnement ak de la transition écologique dafa tànn Touba waaye ku xam lan moo tax ñu tànn Touba tamit dara du la ci bett ndax gannaaw bi nga santaane ñu am taxawaay boobu dafi am kuréel goo xamante ne taxawaayam dañ koy rafetlu bu baax a baax muy Touba ci kanam ministre bi wax na bu ñu waxtaaneek ñoom fekk ñoom am nañu juróom euh, ñaar fekk junneeg juróom ñett ci ay garab yoo xamante ne ñu ngi euh, pare pour ñu jëmbat leen waaye leneen li ci teggu tamit te ñu ñu lay ci sant bu baax a baax bu baax a baax a baax ñaan yàlla tamit mu gën laa may wérgu yaram gën laa may gudd fan ndax eh, bi ñu ñëwee fii nga barkeel benn ci garab ay taalibe yu bari dañ ko def seen yëfu bopp di joxe addi garab ba tax na li waa Touba kanam ci am jotoon am ci ay garab te ñu jox joxe lim gi sànq dafa gën a bari mu doon taxawaay goo nag apparemment un petit problème technique et nous retournons à avec le. kon ndigal gi nga joxe woon méngoog nag li nga xamante ne moom la gouvernement bi di def ñu boole àndoo ci Sénégalais yëpp xooluñu ci ñi bokk ci tarixe gi wala ci tarixe gële xooluñu ci ñi bokk ci kuréel gi wala ñi bokk kuréel gële muy pouvoir muy opposition. Sénégal lañ woote nañ ci jëmbat ay garab saxal ko ngir defar suñu réew xëy na nag donte euh, xaw na xaw gàtt ministère de l'environnement am na lu mot ci juróomi million ci pépinière ci ay garab yoo xam ne euh, seddale nañ ko te at yii di ñëw bu soobee yàlla bëgg nañoo dem ba limat fukki million ci ay pépinière ci biir Sénégal yëpp kuréel yi mel ni Touba ci kanam nag ci sa ndigal dañ koy joxe exemple ci yeneen gox-goxaan yépp te dinañ ci gën a waxtaan ak ministère de l'urbanisme et des collectivités territoriales ci ñu fexe ba commune bu nekk ci ni ko Touba ci kanam defee fii lëkkaloog ci mairie Touba ci sa ndigal feneen tamit ñu fexe ba commune yépp am pépinière boo xam ne dina toll noonu wala mu ëpp ko waaye ñu fexe ba commune bu nekk ci buñ ca dee dem fekk na yow waajaloon nga bés bi ni ko waa Touba ci kanam waajale ndax day tax rek li ministère de l'environnement de def bu ko citoyen yépp sénégalais yi feeloo ci loolu dinañ xam dinañ am lu ñu bëgg te joxoñ gi nga ci joxoñ digale ko njëriñ rek a ci nekk ndax ci njëriñ rek ngeen ñu ciy woo kon ci cant gi ñu lay sant noonu euh, la ñuy sante ñëpp ñi nga xamante ne wuyu nañu ci woote gi ak fépp fu ñu mën di nekk te lii ñu dooraat ndax mos fi am ci weer wu ne sénégalais yëpp bokk jogandoo xam na réew mi ñoo ko bokk ni ci président de la république amee responsabilité ci liy defar noonu la citoyen bu ci nekk ci foo féete ak ci foo nekk noonu nga ci amee responsabilité pour defar te xam nañu ne ci loolu ngeen ñaax ñu leen gën Euh, yaakaar ci sénégalais yi gën leen déggal ndax woote moom yàgg ngeen ko def wane yoon bi yàgg ngeen ko def te xam naan sénégalais yi déggal nañu leen moo tax lu ngeen ñu ci gunge rek ñu leen di gën a tàllal loxo ngeen ngeen ñu gën ñu gunge loolu moo tax ba li li ñu sumb rek dinañ ñëw ci kilifa diine yi gën leen ko leeralal ba ngeen xam fu ñu bëgg a dem ndax bu ko defee suñu kàddu néew na fu mu egg lool waaye yéen fu ngeen wootee ñu déglu leen xëy na dina fekk projet bu ñu tey nii sénégalais yi gën cee jàpp ndax njëriñ rek lañ ci am yaakaar ci réew mi kon sant nañ bu baax a baax di wax na tamit euh, jublu nañu ci xew mu mag muy magal bi soobee yàlla dem rek premier ministre mu ngi woon sama kër ba daanaka minuit di waa ji jot euh, te liñ doon waxtaanee yëpp magal gi la mooy naka lañuy ñuy fexe ba ministère yi nga xamante ne gën nañ leen soxla ñu gën a baral seen taxawaay ci liy defar lépp ñu mën a booloo def réunion ci njiital première ministre ba ci fànn yëpp muy ci wàllub paj mi muy ci wàllub ndox mi muy ci wàllub sécurité muy ci wàllub leneen ak leneen ministère yi mu gën a intéressé ñu toog waxtaane ci benn bés ñëw seet si kilifa yi bokk ak ñoom waxtaan xool li war ñu bu ko defee ñu arrêté solution yi nga xamante ne day ñëw ne gouvernement bi day xëy na ren gi xaw na gàtt sax te niñ ko waajale lii mooy taxawaayam te taxawaay bi yëpp mooy képp koo xamante ne mu ngi ñëw ci bés bu mag bii nga xamante ne sëñ Touba ko moom ñu mën a def seen magal ci nu mu gën a àndee afia ak ci nu mu gën a àndee ci jàmm ak ci mucc bu ko defee yeneen at yii di ñëw dina fekk ñu gën mën a waaj ba problème yi am gën a neew lool lool lool lool lool ndax euh, farata la ci ñun taxawaay boobu ñu am ko pour gën a euh, ñongalal gën a yombalal nit ñi seen ñëw bi fii ci bés bu mag boobu ndax euh, liñ ci def rek xeeb nañu ko liñ ci def rek xeeb nañu ko te dinañ ci góorgóorlu lépp suñ këmtalaay kattan ba fi Sénégalais di jóge biir réew ak bitim réew ñëw ci bés bi mu bu ñëwee mu gis ne que lii ko état warlu ci garantiral ko mu jaamoo yàlla nu mu ko tànnee mu matal ko incha allahu rabbi kon lii laa bëggoon rek eh, yëkkati ci kàddu Mbàkke di la sant bu baax ci dalal beeg taw feex bi nga xamante ne biñ duggee Tuuba ba tey yëg nañu ne que waajal nañu ko te moom lañ gis ci lépp salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi